asalaamaaleykum senegal man la wuli wuli waat dama maa ngi wax mbir yëpp nañu abone ci wasaare lam parce que wasaare lam am na solo jël lam boo wasaare ko ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lam. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen fii ci wasaare lamb sama gars yi namm ngeen ma waaye namm gu ngeen ma namm namm naa leen namm bu ko raw wolof daf ne lu def di waxul lu ay ndi njàmbat. tey nag dañoo nekk ci loo xamante fii mooy Pikine boo gisee monument bii nga xam ne kii mooy suñu papa Falaye Balde yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana kii monument la woon ci Pikine waaye monument la ci làmb moom papa Falaye Balde mbokk yi tey ñu dëkkal leen li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ci dëkk bi di diggante combat Modou ak ki nga xamante ni mooy Ama Balde combat bi taxaw na wala taxawul askan bi noonu lañ ko gisee mbokki ñu ngi fii ci Pikine dinañ def micro xoolal leen dëkk bi xoola leen waa Pikine xoolal leen fan sa Ama Baldé yi nan lañ gisee làmb jooju Malcolm ñu dem let's go. grand maa ngi lay siyaar. maa ngi lay siyaar frère. naka yi tey. ça va sant yàlla. Ama ah, làmb ju neex la moom franchement waaw ah, loolu xamte nañ ko loolu daal waa Pikine yaa xamte nañ loolu. noo ko gisee. ah mais ñun suñu mbër xam nañ ko yàlla def na ni euh, dañoo fekki mbapatam ah léppam loolu jaaxaluñ quoi. mais dégg nañ combat bi ci mot Ama Balde la tagee lu waral lool. non loolu daa mën a ne. yaa ngi soxla combat bi tagee si yow. Ama yàlla man Ama xam naa ne bu ñu ko fayoon téeméer téeméer ko suba ak Modou Lo dina jël. ko quatre-vingts millions mu bañ. loolu ay wax la rek mais la xam ne bu dugg bu duggoon Kër Fallaye gii danañ ko reeree. loolu lenn la sax yow mii ngi wax. gisee làmb jooju. ah mais ñaan yàlla mu ñëw. sunu mbër yàlla defal ko si ndam ndam lu seddu guy te incha allah rabbi gëm naa ne dina ko am ndax xam na ma xam daal parcelle ak ak am na nu mu demee woon de. pikin moo jur géej waaye jur parcelle. Pikine Pikine Pikine ay Dakaaru daal. ci gàttal loo tudd. man maa ngi tudd Mara Ndiaye. Mara Ndiaye maa ngi lay bëggee maa ngi lay bëggee siyaar. salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax noo def. sant yàlla. amaa Balde Modou Lo. waaw loolu moom dama kaa man mii sama jëmi bopp sax maa ko gën a soxla ka Ama Balde. Hmm. bu wóor na yàlla. foo teg loolu. fu ma teg loolu. ah ñun dañoo dëkk Pikine. yaa ngi dégg amuñu lu nag. ah couronne bi dugg fi même pas amuñu benn ci amuñu ci benn combat boo xamante ni sax war nañ ko victoire ba sunu xol sedd si Modou Lo ñëw jël loolu te ñun gisuñu kenn koo xamante ni tey jii ci Pikine ku dul Ama Baldé moo war a mën a jëliwaat couronne bi indiwaat ko biir Pikine. lamb ji dina neex wala lamb jooju loo ci gis parce que combat bi ni ko askan bi bëggee ba léegi taxaw. lamb jooju. man mii di wax a yow mosuma dem làmb waaye làmb jooju dina dina tax ma dam làmb waaw. Modou dafa am lu mu defaloon waa Pikine de. ma ni xam na waa Pikine de Modou xam na waa Pikine bu baax waaw Modou Lo xam na waa Pikine bu baax. jaajëf. naka ay télé yuy toog di wax rek. Ah. est bu ko ko fayee mu jël Modou Lo ñu dem ba dégg quatre-vingts millions lamb bi demee stade bi gën a rëy Sénégal ñu ne Ama Modou Lo Ama ma teelal pare nañ ma waat ñu Ama li muy wax loolu. pare naa pour waat moom si kaw. ah waaw nu ngeen gisee lamb jooju Ama Baldé ak Modou Lo arène nationale. wala ñu yóbbu ko Léopold Senghor loo ci gis yow. non xajul fii bu dee dëgg rek. Ah. xajul fii ñun waa Pikine rek bu ñu ñëwee waxatuma ne ñuy jugee Gambie ñuy jugee Diamniadio ñuy jugee Mbour ñuy jugee feneen ak feneen xajul fii loolu xiir rek la ragal xam nañ lépp. ah ah léegi daw tax sareet la woon. ñemeewul papaam la doon àndal di jaay jën xam nañ lépp. dafa yéeg sareet. ah la. waaye jërë ngeen jëf kilifa gi maa lay nuyu. ñu ngi lay ziar. noo tudd man maa ngi tudd Talla Dioum. Talla Dioum Talla noo gisee combat moduloo Lo Ama Baldé. waaw combat Modou Lo Ama Baldé lu war a mën a nekk la parce que garab ci kaw lay fekkante te ñoom ñaar toll nañ foo xamante ni du question làmb sax mais comme dañuy liggéey ñoom ñaar ku ne war naa mën a may xaalis sa morom euh, fii Ama toll bay laaj Modou Lo Modou Lo tolloon na fa di laaj Balla Gaye te Balla Gaye daf ko mayoon sansam ñi ci kaw ñoom ñoo war a ubbi pour xale yi ñëw yaa ngi dégg parce que ñoom ñëpp dañuy liggéey te ñoom ñëpp maa leen wax ni leen fii ak ku ci amul xaalis dootoo am ci làmb ci ku ci amul xaalis dootoo ci am parce que nit ñi li ñu doon def ci làmb dootuñu ko ci defati kon nag fi ñu toll occasion bi présenté wu na nan ko exploité Modou Lo mooy may Ama xaalis Ama mooy may Modou Lo xaalis Ama na laaj ju jaadu Modou tamit na laaj ju jaadu incha allah bu ñu ko defee après li ci des nag ñu bàyyi kook yàlla. nan nga gis ñi nga xamante ne dañ naan làmb jooju jotagul teel na ci Ama Balde wala yooyu yow mi dëkk Pikine en tant que ay supporteru Ama Balde wala ay frère Ama Balde nu ngeen gisee loolu. làmb jooju jotagul loolu wax ah, waxi waxi waxi fans la rek xam nga léeg boo dajeeg fans wala nga dajeeg supporter mën na la wax jeneen wax mais boo dajeeg amateur làmb dina la xam ne làmb jooju jot na ndax làmb dafa war a ubbeeku ñoom ñi ci kaw man fi ndool damay wax ni tey ku mel ni Eumeu Sène war na mën a bëreeg Sa Thiès ni Balla Gaye war mën a bu bëreeg Boy Niang ku mel ni Modou war na bëree mën a bëreeg Ama Baldé bu ko defee ñoom seen rakk yooyu nekk ci suuf ñoom ñu may leen loxo parce que dañ leen a may loxo Balla Gaye Ah, Moustapha Gueye mën na ko papa te Balla Gueye bëri naa ak Moustapha Gueye mm-hmm. Lac de man Moustapha na ko papa te la de bëri naa ak Moustapha Gueye kon nag noonu nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci kaw di leen may sens Balla Gaye ni ko yëkk ni mayee woon sens Balla Gaye na maye noonu sens euh, euh, euh, booy Niang Modou Lo mayee noonu sens Ama Baldé Sa Thiès Eumeu Sène may ko sens mais lool mooy làmb mais ñoom ci kaw ponkal yi ñu dem di bëri di bëri di bëri seen bi dañuy dem ba dañuy soof chaque jour ñu naan Balla Gaye Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo ni Modou Lo de Guiers amatul benn sens ay combat lambi jànq lan soxla comme lamb ju demee Ama Baldé Modou Lo tey euh, Eumeu Sène mën na may sens sans Thiès Balla Gaye may sens booña loolu mooy ubbi lamb ñoom nan may xaa ñoom yi wala ñoom yéenewuñu seen rakk yi suuf xaalis suñu yéenee seen rakk yi suuf xaalis comme leen seen mag yi defee woon ñoom ñu defee ko ni parce que làmb jooju ñiy wax amagul ñiy wax jotagul moom ñooñu wax rek la ñuy wax parce que ñii danoo toll ci liggéey muy Ama Baldé muy Modou Lo ñoom ñëpp danoo ci liggéey te lu am nag làmb leen ko may kon nag ñoom nag waroonoo delloo làmb njukkal waaw waroonoo delloo làmb njukkal. maa ngi lay jaajëf. jërëjëf. jaajëf sama waa ji lay siyaar. waaw maa ngi dolli siyaar bu. naka yi tey. sant yàlla bu baax. combat Ama waaw loolu yoon la de barke yonent bi ndax dañ ko nam billaay walaay talaay yoon la ndax Ama dafa prouvé Modou Lo na ko jox sens am ñoom ñaar ñu bëre waaw. lan laa bëgg a xam waa Pikine ñoo xiif Modou loo wala Ama Balde moo xiif Modou Lo. si boppam moo xiif ñun dañ koy dooleel ñun xiifuñu wala dañ ko mar mais Ama moo xiif dëgg dëgg gaynde gi moo xiif muy Ama waaw. mais combat bi dégg naa ci yéen la tagee de Modou moom joxe na accord bu yàgg nangu. non bu dee su ñun la tagee tey ñu jox la feu vert nañu accordé nañ combat bi barki yonent bi pare nañ nous sommes derrière Ama pour toujours. billaay walaay talaay. yéen ñi dëkk Pikine wala yéen si Pikine bi nan ngeen gisee combat boobu nu ngeen koy waaje non bu boobaa di nga xam ne Pikine dugg na. billaay walaay talaay di nga gis ñoo xamante ne mosuñu dugg si combat dinañ dugg si combat boobu ndax ñoom ñaar fi ñu jaar la daa war a leer daa war a leer nañ doom billaahi waaw. sama waay yaa ngi wuy téléphone de man maa tax wuy téléphone wala nu mu demee noonu wax leen da def interview yaa ngi en direct maa ngi lay siyaar Fall. ñu ngi ziar bu baax a baax lépp jàmm. naka mu yaa ngi jàmm. may eh, ma tuuti ma sama gars yi <laughs> la. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw noo tudd. Xaadim Seye. Xaadim Seye. Xaadim noo gisee combat Ama Baldé Modou Lô. waaw combat de làmb de daanaka daaw ma ci faral di wax lu bari mais mën naa ci analyser rek euh, en tant que ñu dëkk Pikine nekk fii euh, di ay citoyen Ama tamit nekk suñu mbër euh, combat boobu daal xam naa ne bu amee moom dina nekk combat bu neex incha allah. waaw combat boo xam ne daal amaa yi bëgg nañ ko waaw. mais ku ci mel ni Modou Lo Ama Balde Ama Balde bëri na pendant quatre ans ci ren benn combat la bëri muy moog Papa Sow ba léegi nii ñu ngi naan est-ce que gëj bëri bi du perte repère wala du xam fa muy taxaw mu bëgg a jugewaat ci Papa Sow dal ci ki nga xamante ne mooy Modou jar jaadu na. waaw jaadu na parce que Ama def na loo xam ni tey war na mën a dal ci ku dul sax parce que performance am dépassé na foofu puis am na qualité Ama daal war na mën a bëri ku ne man sama gis-gis parce que macha allah màgg na waaw te mata na ko tamit waaw. moom Modou Lo bu taxawoon wala li koy waaj a taxawal nee nañ mu ngi dag tagee ci Ama Balde noo koy wax en tant que supporter Ama Balde. par exemple comme ñu ni combat bi. ci combat bi ci Ama Balde la tagee. waaw ah, la tagee waaw parce que làmb tamit dafa nekk loo xam ni soo ci dugg ku ci nekk da ngay xool li la arrange nga def ko. waaw tey jii ci lépp la àddina lépp la amaana. bu xoolee euh, xam ni arrangé wu ko day defarwaat xam nga dóor koo jël en tout cas daal nit lépp lay dugg daal bàyyi ba pare ci lépp dóor koo jël loolu daal man laa gis sama gis-gis waaw lépp looy dugg bàyyi ba mu leer na pare nga nga dugg ci waaw. xam nga Modou bu baax de. waaw Modou Lo jaar yi gis nañ li muy def champion la waaye tamit en main kenn du moom waaw moom mooy càppacoli gi. ci yéen daaw boo du boo ko jël ci yéen daaw de. waa loolu la yàlla dogal mais ama daal ci ci gàttal ci tënk rek. macha allah mën a daan ko ne mën na am lu ne ci làmb bi roi bi tamit ñu ngi koy séenu ci moom te naa ni mën na ñëw ci moom waaw incha allah. jaajëf déggee maam. sama waa ji maa ngi lay siyaar. maa ngi lay bégee bu wër a wér. naka yi tey. sant sëñ Tuubaa. noo tudd. man maa ngi tudd jaw Diaw. Ousseynou Diaw. waaw lanu Ama Baldé nga. man moom dama sës si moom. Hmm. waaw supporter la bu mag yàgg na jamono yi mbapat ba léegi. waaw ñu nag moom bàyyiwuñ daal. kon Modou Lo bi muy bi muy bëreeg di ko daan foo ko fekk. non boobu ñun ñoo ko yóbbu mais mbapat bi Modou Lo li ma jaaxal dane da ko daan si ay seconde kon loolu moo ma jaaxal te mbapat bi ñoom dañoo bëre ba mu yàgg ba mu neex jël bi sax leeru mais daan na ko ama nee na moom nangu na ni daan na nangu ndax parce que waa day takk rajo di wax rek waaw xam ngeen bëgg a jël ci li ngeen waaj dugg te ginnaaw combat bi nee nañ ci yéen la tagee dafa mel ni xam ngeen ci ki ngeen waaj dugg non ñun dara tagewul si ñun ñun avance bi bi mu ñëwee dañ ko reere ndekkee ko toog di ko xaar c'est que kay ñoom seen staff ñoo réeroo seen biir rek mais pare que du joxe na ak accordam ba ni d' accord na ak promoteur benn promoteur Ama Balde ñeneen fay nañ ko quatre-vingts millions mu ne du bëre loolu ci làmb ji yow kay xanaa foo ne. jege na la foo loolu ban site moo ko moo ko moo ko. mais ñi ko wax àdduna bi yëpp lu def du waxul lu ay di njàmbat. waaw est ce que Modou tey gis nga ko mu génn si média yi di wax ah kon ñun loolu duñ si tontu ñun ñun li ñu yor xam nañ ko ñun waa ji ñun Ama Balde xam nañ ko bu baax ñun doomu Pikine la du ragal Modou soo gisee muy wéeri combat bi yëpp bu ko leeroon ne moo mën Ama jël na ko ba yàgg yaa ngi may dégg ñun combat bi tageewul si ñun ñun nangu nañ ba yàgg. lan ngay wax Modou Lo wala waa parcelle yi. non waa Parcelles dama leen wax ñu waaj rek ndax parce que ñoom amuñu combat bu ndaw da parce que ki ñuy dajal tey. taxawagul kat. ah mais. ah yore koy bëgg a yàq. non koy yàqee ñun pare nañu est dégg ñu si leen ama mos nga ko gis nga ko instant yi nii benn média mu koy introsé muy wax wala moom. ñun loolu ñu jaaxal voilà loolu moo jaaxal ñëpp. ñun ñu ngi toog di xaar rek heure bu ñu paree rek pare nañu wa salaam. ana Ama Baldé. non mu ngi fi ñu ngi si ruq yi rek. Oh. waaw ñu ngi si ruq yi bu baax. léegi eh, maam dégg nga li nga xamante ne moom la gars yi wax ci làmb ji. combat Modou Lo ah sama gars yi daa mel ni dañuy añ de sama gars yi daa mel ni yéen a ngi ci añ bi de maa ngi tub de maa ngi jégalu de naka la mbaa yéen a ngi ci jàmm. bisimilah. sant. waaw ah, lépp jàmm. waaw sant bu baax Baye. bëggee Fall. combat Modou Lo Ama Baldé noo ko gisee. ah nu ma ko gisee. ñun ñun waa Pikine ñu ngi préparé wu de saa ñu ngi préparé wu bu baax a baax a baax waaw mu loo moom incha allah moom dañ koy defar bagage waaw pare nañ fépp waaw incha allah. jaajëf jaajëf sama gars yéen daa mel ni yéen a añ bi. waaw waaw kon xéwal rek. na res ak jàmm jaajëfal. ay tamal kom may ma ma jaajëfa tee sama gars yi bëggee siyaar kay naka mu taw féex noo tudd kon buuba buuba noo tuddee combat Ama Ama da koy defara bi ci yéen la Ama instant nii xale la da nga bu bëri mu soog a la war a bëree Modou Lô Modou Lô cent cinquante millions waaw ah ak lamb ji fi mu tol ni non am instant da indi public. ama jamono bi toll nii. non ama day indi ay supporters waaw ah, booy bu ndaw la. Ah, waaw loolu la demee nag bañ bañ nangu la bañ bañ nangu. moo koy wër quoi moom wëratul làmb. mais Ama Baldé làmb moo koy wër jamono yi ñu toll. ku ko bañ tamit bañ nga làmb. Ama Baldé dañ ko war a fay ay millions yu bëri. ndax de moom day dundal làmb jeunesse bi muy yóbbu Pikine dafa bëri. ñuy boote si ginnaawam dañoo bëri. kon Ama Baldé dañ ko war a fay xaalis mais pas ñuy fay mu loo xaalis bu fay moom ay weccet. waaw xanaa loolu mooy demal. 80 millions day weccit. loolu weccit la Ama Baldé li muy dépense combat ëpp na loolu. nga fay ko fayee 200 moom Ama war na leen déglu bu leen déglu loolu man xam la laa gis. pour man yéen waa Ama Baldé. li leen arrangé ñu fay leen ko bu ñu leen ko fayee rek da ngeen war a bëri. waaw waaw mais arrangé guñu moo tax jëlaguñ ko. non li ah. guñu ah, Amadou. yéen a toppoon naan Modou Lo Modou Lo Modou Lo. Modou Lo ñëw taxaw ne d' naa léegi ngeen lay xaay te yéen waxoon ngeen lu ñu leen fay loolu bu mu tax ñu bëgg a profité waaw pour fay booy bi lu leen neex nañ xool li yoon rek ñu teg ko si yoon. ku nekk xam nga lu waaw lu yenu maanaa daal. mais bu booy bi daa prouvé nekkul dañ koy may sensé daa prouvé waaw te daal leer ñu war a jàpp gan bi defaral ko dégg ngeen li nga xamante ne moom la waa pikin wax booy bi dafa pour pourvé d'accord Ama Baldé dafa pourvé ndax sampion la macha allah boo gisee li mu def ci làmb nga xam ne ah, marqué na empreinte am ci làmb moom Ama Baldé waaye sama gars yi yéen a ngi dégg li nga xamante ne moom la ñu defal ci micro trottoir gis li nga xamante ni moom la waa Ama Baldé yi di waxtaane ba tey jugaguñ ci dañuy wàcc dugg ci biir gars yi xool nan la gars yi doxalee ak ni ñuy waajalee Ama Baldé Modou mais euh, ba tey Malcom let's go jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni moom lañ leen jëlalee fee ci Pikine dégg ngeen amabal Ama lu ñu wax ci làmb ji ñu ngi fii nag ci Parcelles Assainies boo nee parcelle tudd xale bi nga xamante ne mooy Tambala Issa Bey bi tudd Modou Xarañ loo nga xam ne parcelle gépp indi na leen titre boo xam ne mosuñu koo dégg ci làmb muy roi des arènes sama gars yi léegi kon dañuy dugg ci biir laaj gars yi Modou Lo yi ñu ko dundee ak nuñ koy gisee maître Assane Ka <laughs> siyaar. bëggee grand. waaw bëggee naa la maam. maa lay siyaar. dolli siyaar noo tudd. Cheikh Gueye. Cheikh Gueye. yes waay Cheikh noo gisee combat Modou Lo Ama Baldé. waaw ah, loolu ñu ngi xaar rek gaa yi ñu ci wax ba ba léegi ñëwagul gaa ñu ngi xaar rek. Hmm. waaw loolu laa gis ah. noo gisee combat boobu. waaw daal boo amee dina neex de. jot na pour ñoom ñaar ñu bëri. jot na kay ndax waaw làmb leen boole jot na de wax dëgg yàlla jot na wax ji bari na trop. Hmm. waaw bari na mooy sa mbër. moom doomu parcelle waaw Modou xarañ la Modou xarañ rek ñun xam nañ grand maa ngi lay nuyu. maa lay fay ji li noo gisee combat Modou Lo Ama Baldé waaye du combat Modou Lo du moroomam na wëri keneen Modou loo soxlawu ko ñu ko fay lu néew te mu doon bëri laami ñëw Modou Lo soxlawu ko. loo gis loo gisee combat boobu parce que Ama Baldé ñu ci bari nee nañ Modou Lo warul bëreeg moom jot na wala jotul noo gisee lo dafa jotul warul bëreeg moom Ama moo bëgg ñu ko fay xaalis dañ koo fay xaalis nanguwul lu Modou Lo du moroomam. loo gisee loolu. waaw waaye Modou Lo du moroomam li ma la wax kay leer na. jaajëf Gara. yee. mais Gara baa lay bëggee. doo lay bëggee. nakay tey sant. noo gisee ah, combat Modou Lo Ama Baldé. moom def naa ne. combat ko moo tax ñoo am pour taxaw sóoraale quoi mu nekk nii. ñun nag si. Modou la ñëw am pour taxaw mais Ama moom sama gayen la moom sama partenaire la mais bu ma soñoon nag du dugg ci Modou quoi mu nekk nii. lu tax loolu. mën na bàyyi ba si kanam a kanam quoi dem lijjantis bi ba si kanam. pour yow jotagul mu bëreeg Modou. non aise bi pour le moment jotagul. jotagul jotagul. est-ce que da ngaa xaritoo ak Ama Baldé bëgg Modou Lo bëggoo combat bi am. non maanaam sama gayen la quoi. nag ñi mu yor ay gayen yëpp samay partenaire lañ. waa Seras moo tax xam nga rek mooy loolu ah man parcelle la dëkk xam nga ne boobaa fii lay ñëw am pour taxaw siisu quoi si Modou waaw nag Modou moo ñu jaral lu ñu am rek tey fu mu nekk nii maman bu ñu toll nii moom moo ko jox waaw. jërëjëf Malcolm Aïcha let's go. grand maa ngi lay waaw ñu ngi lay fay. nakay tey. sant yàlla bu noo tudd. Kabbu. Kabbu noo gisee combat Modou Lo Ama Baldé. loolu du combat Ama dafa yàkkamti mais dafa waroon xaar. moo da koy dóor daan ko ci lu gaaw. Ama Balde dafa takk ngemb dugg ci làmb ne waa parcelle ñoo ma tax a jóg jàpp ay mbëru parcelle daan ku daan bàyyi daan Papa Sow boo laajee Modou Lo na. mais boo xoolee ci promesse Ama Balde daana gu fi mbër mu tax ñu naan mbër. bàyyi li ngay wax sa waay. moo kan ak kan la daan yéen kay seetaan leen. Papa Sow Papa Sow du mbër bu bu tax ñuy wax parcelle bu jugee drapeau bi ki ko yor mooy parcelle Modou Lo moo yor drapeau parcelle lijjantiwul Ama Ama dafa war a dem dallu ji booy na dem dallu ji tam faji asmaan boobu mu am na dem. yow loolu na dem faju ji ba pare mu ñëw ñu bëre kooku mënul bëre dix kooku du ñu daan ñun mënul bëre dix minutes ah. sama gars yi maa leen siyaar naka ma yaa ngi jàmm Mass naka ma. oui jërëjëf naa si jàmm sant bu baax. combat Modou noo ko gisee. Ah, bu neex lay doon de combat bu neex waaw mais ñoo suñu mbër dégg naa ñu ne waa parcelle dañoo ragal Modou Lo de dañoo ragal Ama Baldé de. <coughs> loolu gars yi dañuy wax rek mais xam nañu bër Modou jàppee combat bi day jeex. booy lu métti lañ tegal Modou bi ma fa jógee. non gars yi dañuy wax rek xam nga Pikine moom ak parcelle moom instant yii derby la quoi mais xam nañu tôt ou tard kuy daan waaw. jotaay bi dafa mel ni ni ngeen toogee nii ci làmb ji ngeen waxtaan de sama waa ji maa lay siyaar. delloo siyaar naka mu. noo tudd. Ousmane Ndiaye. noo gisee Modou Lo Ama Modou Lo Ama Baldé waaw combat buy neex rek ah comme yeneen combat yi waaw. noo gisee bëgg nga mu taxaw walla waaw Ama dégg naa gars yi dañ koo ragal de. waaw bëgg nañ mu taxaw te yaakamti nañ mu taxaw lool ndax euh, waxuñu waxu far nag ah mais am na lu ñuy séntu ci Ama Baldé mu jëm ci Modou lu mel nan. ah waaw mooy mbetteel rek loo xamante ni loxo jub. xaw ma loxo loxo loxo dem gémmiñ ci fuñ ko foogee. déedéet luy loolu Ama Baldé pare am doole jël Modou Lo. mu nekk nii waa parcelle bu jàpp nañu Modou Lo bu jàppee Ama Baldé mooy làmb ji jeex na te ñi far ak Ama Baldé am na lu ñu gëm jàpp nañ ni Ama féete na xale jàpp nañ ni Ama waajal na combat bi jàpp nañ ni Ama. moo gën a nekk Modou xale sax li sa waay li li gars yi di bañ. non mais mënuñoo nekk xale parce que ñoom ñaar même génération la c'est-à-dire que Modou Lo daf ko ji daf ko njëkk a bëre combat yu mag rek mais ñoo duggandoo làmb parce que ku bërendoo mbapat ak Ama Balde kon ay génération la. waaw mais loolu mën a wax mun nañoo wax ni Ama Balde moo féete ndaw parce que kii moo ko jiitu ci làmb teg ci tamit boo xoolee ci personnage bi yow daanaka buñ lay jox catégorie xale ak mag man. ama laay wax. lamb jooju bu ñu doon bëree ñoom ñaar looy séentu ci ñoom bëree jël am wala dóor mu daanu. bu ñu doon bëree ci ñoom ñaar waaw ay dóor mu daanu moom yaakaaruma ko ci wax dëgg fa yàlla yaakaaruma ko ndax ñoom ñaar ñëpp kenn sàgganul ah. ba loolu di ci am yaakaaruma ko waaw loolu moom yaakaaruma ko. bëree mag xale la wala ñaari xale. waaw mën nañ ne bëree maanaam ñoo xamante ni maanaam dañoo xaw a yam génération waaw mais nag par chance mën na ëpp ko ci ci ci ci ama waaw man gëm naa loolu moom waaw ñun ñi gëm Ama ñun loolu lañ gëm. soxna si yow fan sa Ama Baldé nga may nduróol de. man fan sa Ama laa fan sa Modou Lo laa soxla moo pour mu taxaw. lu tax loolu. ñoom ñaar ñëpp laa bëgg moo tax. mais am na fu mu gën a far. yii soo bëggee léegi dëgg daal ñoom ñaar ñëpp samay mbër lañ waaw. Ama Modou Lo laa gën a faral. noo gisee combat Ama Baldé Modou Lo waaw combat la combat la mais gars moom xam ne ni moom bëree bu koy mbaam la rek yàgg-yàgg moom xam nga Modou Lo la koy defaral quoi parce que du du moromam quoi Modou Lo du moroomu Ama Baldé Ama Baldé ci lan Ama Baldé am doole dugg parcelle daan seen ñaari mbër ku daan Baye Peul daan Papa Sow nga naan ko du duñ moromam non Ama soo xoolee xam ne mystique bi moo ko fi bàyyi rek mais du bëree bi du dóor bi du dara Modou Lo moo ëpp mystique ci làmb ji loolu ñëpp a ko wax bul tudd mystique. non Ama moo gën a bon la ay mystique Ama bu lu mystique du bëree. billaahi doo xool daani Papa sax nga xam ne loolu mystique la soo xoolee kimit yeneen combat bi da ngay xam ne kii mooy loolu su seetaanee combat moo ma nees nga xam ne Ama yorul dara du bëree bi du xeex bi moom guy gi c'est la même chose ñaari defar yi mu jël yëpp soo xoolee nga xam ne Ama mi andiwul bëree andiwul xeex Modou moo ko mën waaw mystique daal la ñuy xalaat affaire yooyu noonu te Modou tey soo ñëw quoi. yàlla baax na daal Modou daal bu jàppee Ama Baldé lu doy. jaajëf sax waa ji maa ngi lay siyaar. maa ngi tudd man Pape Niang. Pape Niang combat Modou Lo Ama Baldé. combat na. jaadu na ci nan yéen ñi dëkk parcelle. non soo déggee jaadu na du cadre ci njëkk parcelle. lamb moo soxla combat boobu Modou Lo Ama parce que Ama toll na fu ne di ko laaj ñëpp di dégg Modou bëri na ba toll fii te bi mu toll fii Ama toll doon laaj ay magam kon yoon la Modou may loxo Ama. te lamb boo leen parce que Ama dafa daan ñu daan Modou Lo Ama daan na Tapha te Tapha Tine daan na Modou Lo. Tapha Tine bëreewul ak Modou Lo. waaw Tapha Tine mais Tapha Tine daan na Bombardier te Bombardier daan na Modou kon jaadu na Ama Baldé bëreeg Modou Lo combat bu jaadu la. mais Ama Baldé boo xoolee parcours yu Modou Lo def ci làmb ak yi Ama Baldé def ci làmb jaadu na ñoom ñaar ñu daje. waa doo xool parcours bi soo xoolee parcours bi. day am day am complication parce que li tax boo xoolee parcours day am complication ñaari mbër mënoo xool parcours ne parcours leen di boole. lamb bi mooy tëgg boppam continue bi mooy tëgg boppam te combat Lo Ama Baldé moo ko soxla day dëkk day day day day day day bouger lamb ndax Modou Lo yor na roi des arènes mais fi mu toll bu ko Ama Baldé man sama xalaat xaw ma ko war a bëre sinon ay revanche rek la fi bëre combat jànq bu neex bu Sénégalais yi bëgg Modou Lo Ama Baldé combat bu neex la. lamb ju am fii Sénégal arène nationale lañ ko war a tëggee arène nationale bu ñu fa def li ñu wax ni loolu lañ fa def ci ay milliards def ko fa jëmaat stade amitié du yoon amitié fële lañ ko war a bëree ji arène nationale ba lañ ko war a loolu moo jaadu arène nationale lañ war a tëggee lamb yëpp. boo déggee ñu ne Modou Lo fay nañ ko 150 millions mu nangu Ama Baldé ñu fay ko 80 mu bañ jaadu na ci lamb ji. waaw non jaadu na Modou Lo fi mu toll mooy roi des arènes lu ñu ko fay mérité foofu la mbër yëpp ni ñaan ku fa àgg lu ñu la fay jaadu na ci làmb Ama Baldé tamit bu ñu ko fayee 80 millions ci li ma jàpp war na kaa mën a jël xëy na bu ko jël nag moo tax mais moom mi toogoon di laaj Modou Lo fu ko fayoon moom 10 000 francs a jël Modou Lo ndax moom du la bëgg mais damaa jàpp ni daan Modou Lo moo ko taxoon a jóg wala bu a dugg ci Modou Lo wax mu leer bu fekkente ni lamba tax mu bëre mu bëgg a bëre ak Modou moom jaadu na moom li ñu ko moom jaadu na parce que 80 millions du waaw nit dund na ma dee taamu ko buñ nekk ko fay ci benn takkusaan war ngaa mën a jël dem bëre ji de jaadu na kay xel <laughs> ay caaxaan <laughs> eh sama waa ji xanaa Diouf sant yaay dagg xaal de. sant mu Diouf de ah. waaw. man Camara sant waaw. noo gisee combat Modou Lo Ama Balde. waaw combat Modou Lo. doo si gi xool bu neex la bi askan bi soxla ñëpp soxla ko xale yeeg mag ñeeg paa yeeg ndaw ñi ñëpp ko soxla ak jigéen ñi dañoo war a bëre. mais nag Ama na jël xaalis bi bëri motloo Modou Lo parce que moo taxaw fii di laaj Modou ba tey gaa yi di dox combat bi na ko jël bu mu daw. kon yow da nga gis ni Ama dafa daw wala ni ko fay moo ko arrangé wu. day daw ci daw la bokk lii muy def nii parce que boo demee taxaw nag mun nañ ma jox Modou moom laay xaar ñëpp xam ne yow yow ba bëri ak daa jaadoog yow ñu fay la ay million fay Modou ay millions jëlal lamb noonu lay doxee boo demee di laaj nit ki bu la fayee lu ko jar da koy jël te dañ ko fay lu ko jar na ko jël bu mu daw. waaw noonu la demee. daw nga gis daal waaw daw kay ñu xët. waa jéegi ñaw de. ay tailleur machine. oto géwal ndëndam waay. <laughs> tailleur machine chauffeur waaye sant yàlla bu yor baay. nakay tey sant ni. Ama Balde Modou ah neex na de waaw. noo ko gisee yow. ah lamb lamb moom lamb bu neex la moom lamb du ko gën a neex. waaw xam naa ni mooy raw Balla Balla Modou. waaw parce que ñaari ñaari xale la quoi yoo xamante ne au fait Sénégal gépp dañoo bëgg seen làmp noonu la mu ngi mel ni jamono yi Balla Modou rek ba ba Modou di fël Modou ah, Balla di taxaw si kanamam noonu lay demee rek Ama fu mu toll nii taxawaay Modou lay taxawee làmb da ko gën a parcelle koo wax rek mu ne Ama na jël na jël na jël daa am lu ngeen ko guuxal kan si Ama Baldé ah mais loolu tamit ah xëy na ak ñu koy wax rek waaw loo gis ci làmb jooju waaw làmb du ko gën a neex moom waaw koo faral ku gañ a baax na <laughs> dëkk parcelle daal ku gañ a baax na waaw mais ku gañ a baax na rek làmb jooju mun ma si wax dara mais ku gañ a baax na ab la foo far non fu ma far moom jarul may wax non fu ma fu ma dëkk sama xol moom jarul wax mais ku gañ a baax na hmm. waaw jër jërë ngeen jëf sama gars yi kon dégg ngeen li nga xamante ne moom la waa parcelle wax dégg ngeen li nga xamante ne moom la waa Pikine wax ku ci nekk joxe na li nga xamante ne mooy xalaatam ci làmb te làmb noonu lay doxee Ama Balde bu ñu nee moog Modou jaadu na ndax Ama def na preuve ci làmb wax dëgg parce que boo xoolee fi mu jugee ak fi mu dal waaye dafa am loo xamante ne ñu ci bari ci làmb constaté wuñ ko woon wala gisuñu ko muy Ama Balde premier bi mu daanee Ousou Ndiaye dafa taxaw ne waa parcelle ñoo ma tax a jóg waa parcelle ñoo ma tax a jóg mu daan Baye Pël ñu ne déetawaay mu daan Papa Sow kon bu laajee Modou Lo Modou war naa mën a jël ngir loolu waaye tey combat bi tagewul ci Ama tagewul ci Modou Lo xëy na problème mu xaalis la ñu am tuuti rek te ragal nañ incha allahu rabbi fii ay jëmmi jamono combat bi dina taxaw ndax Sénégal bëgg nañ ko askan bi bëgg nañ ko mbokk yi kon foofu laa leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen numéro ci wasaare làmb jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli waat dama maa ngi wax mbir yëpp nañu abone ci wasaare làmb parce que wasaare làmb am na solo jël làmb ba ko.